kon daf fi amoon mu laaloon ñeenti région Dakar Thiès Ziguinchor ak bi ñu ko évaluer ñu gis ne affaire bi doon ngi dafa dox bi par ñu ne nañ ko def ci commune yëpp Sénégal yëpp yàlla dogal dans la région de Thiès ñu dénkaat dénk liggéey bi Kajoor Jànken parce que depuis 2015 ñu ngi liggéey ñoom te chaque fois lu ñu leen dénk ñu ngi koy def Kajoor Jànken na cette fois ci mu am le gros lot mu am 55 dénk ndaw yoo xam ne dañoo war a nekk ci gox goxaat yi ak ñaari gestionnaire moom rek ko am Sénégal léegi nag ñu ne ñooñu ñu yaakaar ne bu ñu defee sélection war nañu mën a participer dégg ci projet bi nañ leen réunir waxtaan ak ñoom ci projet bi waxtaan aussi ci condition de travail en même temps ñu def lu ñuy wax répartition géographique pour bu ñu leen di affecté ëllëg ku nekk dégg nga fu ñu lay affecté day nekk foo xam ne dafa jege wante be doo am coono pour nga mën a déplacé wu donc loolu moom moo sabab moom liggéey bi euh, tey lu ci ëpp solo mooy nit ñi xam projet ba bu ëllëgee képp ku ci engagé wu di suñu contrat xam ci lan lay dugg ndax dégg nga bëgguñu dem ba ci biir kii ne noo xamee moo ko woon ni wala xamee moo ko ni te comme que Kajoor Dieng à travers dégg nga son manager Aliou Dieng ici présent euh, dañuy liggéey en harmonie en concertation ñeen nañ ko def ci teel ñu pare ba délégation bu naan aca rek fekk ñun pare woon nañu lépp départ rek lañuy def donc loolu moo ñu fi dajale tey bon lu ñuy xaar dégg nga mooy nit ñi xam projet bi jëlal ko nekk fi def ko seen projet bopp lu ñuy wax appropriation ñoo xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko war a dérouler te lépp lu ñuy def dégg nga bénéficiaires yi ñoo tax ñi nga xam ne ñu bu ëllëgee ñoom ñoo ciy gis seen bopp comme que ay agent de développement lañ donc loolu moom moo war a nekk loo xam ne ni moom moom la ñu war a jiital ci lépp lu ñuy def waaw loolu daal moom moo nekkoon sababu jotaay bi tey waaw man maa ngi tudd Khatri Diagne di président du conseil d' administration de la fédération Kajoor Jànkeem. Hmm. Ah, waaw solos ndaje bi mën nañ koo inscrire sur plusieurs angles d' abord il s' agit d' un projet qui est très cher à l' muy le projet yokk koom-koom euh, boo dee xool parallèlement le gouvernement a instauré un autre pro euh, projet. muy euh, li jëm ci bourse familiale yi solo bi nag li koy indi mooy lutter contre la pauvreté parce que bu état jëlee lu mel noonu pour dimbali askanam génne leen ci pauvreté en passant par les enfants ba mu egg ci suñuy loxo ñun donc solo si kenn dootu ko waxati quoi donc jë afee nag que ni ñaari projet yooyu yëpp Fédération Kadior Janken qui s'occupe des enfants démunis, vulnérables et exclus de la société pour leur assurer un mieux-être social hérité ko day day doon loo xamante ni lu am solo la donc projet boobu du doon nekkul lu bees ci ñun mais tey jii nii phase la boo xamante ni dafa topp ci phase yi nga xamoon ni jotoon nañ koo dérouler ba pare une évaluation a été faite Et vraiment, le niveau central a été très, très, très satisfait des résultats que Kadior Djanken lui a offerts. C'est pourquoi aujourd'hui, mu réitéré confiance boobu joxaat ñu ko ba ñuy war a dérouler la phase bi ci tegu. bon formation bi aujourd'hui on a cinquante cinq jeunes yoo xamante ni dans la politique de l'employabilité des jeunes qui est très chère au gouvernement Kadior Dianken dugal na ci loxoom. en collaboration avec le le le niveau central pour former cinquante cinq jeunes aujourd'hui yoo xamante ni ñoom ñooy piloter projet bi. ndaje bi. liñ ciy xaar mooy que les enfants puissent être des citoyens que les enfants puissent accompagner le gouvernement dans sa politique de résor euh, de du chômage dans sa politique vraiment de d'octroyer aux jeunes des emplois donc loolu la ñuy xaar mais liñ ciy gën a xaar mooy. ñu doon des jeunes yoo xamante ni ils sont responsable ils son citoyens donc loolu la ñuy xaar ci ñoom daal. man maa ngi tudd Manta Badiane nekk gestionnaire si yokk koom-koom nekk également au niveau de la fédération Kajoor Jankeen nga xam ne mooy OS bi nga xam ni moom la ñuy dénk euh, bourse familiale bi dénkaat ko tey ji yokk koom-koom bi si région de Thiès. yokk koom-koom mu mel ni ute na tuuti ak bourse familiale su ma la doon wax uté bi lan nga may tontu waaw yokk koom-koom euh, booy xool euh, day ñëw renforcer li nga xam ni moom lañu leen def ci bourses familiales yi parce que yokk koom-koom ñi ngi koy jagleel ñi nga xam ni ñoom ñoo am euh, bourse de sécurité familiale maanaam ñi nga xam ñooy fayeeku juróomi junni ñett ñett ñetti ñetti weer nga xam ñoo am juróom junni ñetti weer yu nekk ñooñu ñoom ñoo bénéfice ci programme yokk koom-koom bi yàlla dafa def nag ñu defoon phase test maanaam doon xool avant ñu yaatal bi yàlla defee ñu def fa test boobu ah mu réussir vraiment euh, ñi nga seqoon yëpp acteurs yi ko seqoon yëpp apprécier moo waral ñu yaatal ren yaatal bi nag mënut a daj fépp mais commune yëpp am nañu. yan nit yokk koom-koom bi li ma wax dafa am ña loo xamante ni moom mooy programme national de bourse de sécurité familiale. Mhm. mooy ñi nga xamante ni état bi tànn la leen di leen jox juróomi junni ñetti weer yu ne. ñoo ñooy bokkaat si yokk ko mais du ñëpp tamit ndax sélection lañ def mënuñoo delloo ñëpp en même temps dafa am benn pàcc boo xamante ni nii moom la ñuy jël te loolu defuñu ko suñ coobare bopp boo xoolee dafa am ay li nga xam ni ay de yoo xam dañ ko organisé woon si CDD bi délégué quartier ñu ngi fi woon maire yi ñu ngi fi représentant des délégués quartier ñu ngi si woon représentant yi nga xam ni ñoo nekk action sociale ñëpp a ngi woon ñu toog ah ñu xam ni commune bu nekk war na am nombre de bénéficiaires si yokk koom-koom bi biñ ko xoolee nag xam nañ ni ah euh, commune bi nekk la mu yor rek ci ay bénéficiaires bari na lool mais dañoo amoon benn moyen boo xam ne moom la am mooy au moins commune bu nekk dina am euh, juróom-ñett fukki bénéficiaires ak juróom-ñaar maanaam 87. Mm-hmm. waaye nag dafa am segg boo xam def nañ ko ci tamit mm-hmm. maanaam quartier boo nga xamante ne amoo lu mat fukki bénéficiaire ak ak ak ñaar maanaam ñoo xam fukk ak ñaar ñoo xam ne am nañ bourse quartier boobu dañ ko éliminer mënu see bokk. ndax li ñuy taxawal muy ASEC yi wala ngeen ko gën xam si avec il faut lu mu néew néew am fukki nit ak ñaar donc loolu mooy li nga xam ni moom lañ doxalee li nga xam ne mooy programme yokk koom-koom bi def CDD bi au niveau de la préfecture ñëpp teewe ko quartier yi génn ñëpp xam ni ñi ñëw génn ñi ñi xam ni génn ñu ñu xaar ba beneen ba beneen yoon. bon formation bi déjà xam nga fédération moom buñ ko waxee rek foofu lu mucc ayib moo fay jógee. parce que vraiment présence bi mu ngi fi en plus euh, qualité bi mi ngi fi aussi. te loolu euh, dañ ciy sant yàlla rek parce que gars yi yàgg nañ ci terrain bi yàgg nañ ci yu mel nii. kon lii du guléet tey ji kon dañuy doole sant rek te yaakaar ni liñ fi indi dinañ ko mën a matale. vraiment te attente bi yëpp li ñuy xaar si ñu mën koo àggale daal. bon fi ñu toll nii pare nañ bu yàgg ah, pare nañ bu yàgg parce que boo xoolee man mi di wax euh, première phase bi. ci laa bokkoon. léegi phase extension bi mi ngi nii kon déjà am nañu benn accumulation bu ñu def ba pare quoi ci projet bi. nous puissions vous faire confiance. donc nous sommes ici uniquement présenter le projet. vous présenter aussi les conditions dans lesquelles vous allez vous engager et que chacun sera libre d'avoir temps d'une semaine de réflexion avant de signer la fiche d'engagement qu'il va par mail avec la photocopie de sa pièce d'identité. Si ce processus est bouclé que, comme l'a dit le manager, la délégation envoie le contrat, en ce moment, on poursuit des contrats et on va vous appeler pour qu'on démarre. toutes les personnes, sachez que ceux qui seront retenus et qui s'engageront vont démarrer au mois d'avril. Parce que nous sommes en train de voir, est-ce que nous n'allons pas démarrer le 15 Mais j'ai vu beaucoup de personnes qui habitent Thiès, beaucoup de personnes qui habitent Mbour. Alors que le projet concerne l'ensemble des communes de la région de Thiès. L'ensemble des communes. C'est pour vous dire que par rapport aux affectations, que chacun ne croit pas que man Thiès laa dëkk fii dañ may bàyyi. Parce tout le monde ne pourra pas être à Thiès. Vous êtes 55, de communes dans la région? 49 il y a 49 donc communes des gens vont se déplacer quitter chez eux partir dans une autre commune pour y travailler comme moi je suis né à Kawa un petit village de Réunion et je me suis retrouvé à Dakar parce que je suis affecté ici donc aussi il faut que les gens soient prêts à au moins être affectés ailleurs et de pouvoir faire le travail Nous allons quand même faire des ménages, des, des, des ménages pour essayer de trouver les meilleures solutions et les meilleures options pour faciliter les gens euh, à être affectés dans des zones où ils pourront vraiment travailler sans pression. Cependant, je vais quand même être un peu féministe pour dire que les meilleurs zones les plus accessibles, c'est de réserver aux dames. Les ça c' est une euh, réalité absolue. non loolu la président. non wax nga ma. les meilleurs jours. les meilleurs jours les plus accessibles. je vais les donner aux dames. les zones les plus vraiment difficiles à accéder seront réservées aux Sérères <laughs> et et aux Jola. on a vraiment le problème de la résidus quoi n'est-ce pas. Non, mais ce que nous allons faire. Donc là, voilà, on va démarrer rapidement les présentations pour ne pas passer toute la journée et que les gens puissent retourner à temps et aujourd'hui c'est vendredi. donc ci gàttal daal loolu moo mën moo ñu fi dajale fii nag amul man booy Birane la c'est le coordinateur lu ma neex laay xëy lu ma neex laay gontee amul amul man dañ nga manager sama càpp fi dégg nga man maa rek ci jabaram ñaareelam te moo dafa ragal ñaareel bi donc lu ma neex def loolu amul fii ku nekk fi la joxee la nga war a def jëpp naa ko sax nit ñi dañ koy def parce que boo xoolee sa ginnaaw xool ñaata CV dañ déposé au niveau de ma 100 et quelques ci 100 et quelques yooyu ma génne ci dégg nga 55 ngeen war a xam ne ku jaar ku sori leen jaar pour ñu jël leen ku ñu fi woo rek da ngaa war a bokk parce que bu ñu la waxee conditions yi nit ki na nekk ci situation boo moo la gën a lii ku nekk na ko la nga téye actuellement dara nga ne mën na la gën a lii ñu lay présenté te dégg li loo en toute bu lekk seet na ko boo xamee ne nag lii nga gis nii li la présenté moo la gën a la nga téewu nga engagé wu contrat tu dois faire le maximum pour honorer ton contrat la nga jot mu nekk loo xam ne nii leer la ne daf la def amul dara lu ci compliqué liggéey bi te waxal bindil ay rapport ay vingt pages rapport bi peut-être mu nekk ay tableau boo xam ne dañ leen di ay tablette bu mag ku nekk yéen dina am tablette bu bees nga téye ko nga téye sa téléphone bi nag parce que tablette bi daal trois cent mille trois cent cinquante mille samedi bi ma xam ne tablette bi na wala wér na taxul ñuy wax c'est la propriété du na ko nit ñi téye ñu téye seen kii liggéey bi yëpp ci tablette bi nga koy def amul bind ay kayit yu yónni yooyu yëpp ay la ci bi nga koy def di am léegi benn montant boo xam ne communication la tudd pour bokk seen salaire pour ngeen mën a connecté wu di envoyé ko nit ñi donc benn fiche day boo xam ni ay remplir yu ndaw soo paree nga bës envoyé nga envoyé donc c' est pas jàpp on a dit pas plus de mais développement c' est pas un problème de diplôme donc problème d' engagement et la ngay def da koy bëgg doo ko buggee rek jàll comme ni ko président waxee fii nit dañoo am jaar jaar ñëpp man tey li ñu leen proposé c'est vrai que jamono yu bokk soo ko comparé man la ma njëkk a fayee ko bu ma génn di liggéey Tostar bu ma payé quatre fois c'est une ma doon jox ñu ne borom kër bi ngay dëkk ci chef de village bi moom ngay jël junni bi nga dese cinquante mille te def naa ci at donc yéen jamono ju ngeen tombé jamono boobu xaalis côté dafa gën a bëri pool la moo tax mu demee noonu mais de toutes les façons c'est pas ce qui est important li ñu ñaan daal mooy du fiy jógee nga am lii dama tukki yoon mën na nekk parce que yàlla sant Guèye sant Diop moo xam dégg nga lan la yéene nit ki ak lan la nit ki di war a am mais loo gis àdduna day am benn balaa nga wax fukk il faut nga commencé benn bu dee nit ñi seen benn lañ ne danañ yegg seen fukk bu dee fii la ko yàlla tudd yàlla na yàlla indi ay projet mu yaatu ba ñu jot ko bu dee feneen rek yàlla na yàlla fukk bi ñu dem foofu ñi nga xam n am nañu espérance ñu ngi ci leneen lépp luñ ko faral yàlla na barkeel. te loolu moo ci am solo amul pression amul dégg nga kii mooy patron bi dafay def nii dafay def ne loolu amu fi te nous sommes une famille de la même génération ak pratiquement euh, magante bi ay 10 ans fii ku nekk si ñun tey war na mën a toog rek ne ñu naan koo ci dajale mën bu la nee bu la nee nga wax ko noonu ko c'est la réunion donc nous sommes de la même génération. bu ku nekk defee lu mu war a def rek mën nañoo bañ a laalante waaw bu ci wàcc yoon rek balaa mu yegg ci man dina laalante ñoom Cheikh loolu c'est sûr donc ñaari projet ñoo bokk même bailleur ñoo bokk même délégation moo projet bourse de sécurité familiale kii moo koy jiite mooy Amadou Ba mi moom mooy gestionnaire bi moo am 35 superviseurs yoo xam ne ils seront boo collecté le parce que ce sont les mêmes bénéficiaires maintenant dañuy encadrer projet bi boursiers yooyu la ñuy encadrer sur la bourse de sécurité ngeen organiser de crédit ou en association de crédit donc ce sont les mêmes cibles donc vous êtes tenus à travailler ensemble projet bii nga tudd yokkum dafa gën a bëri ay accompagnateurs moo tax cette fois-ci on a pressenti avoir deux gestionnaires ñu présélectionnés Cheikh mu nga xam ne moo fi nekkoon ci partie pilote bi comme gestionnaire ak maa anta nga xam ne pilote la mu ngi doon ñëw ci projet bi waaw donc noonu lay demee vous allez travailler ensemble les deux projets et vous allez répondre directement du mélange de la fédération qui est votre supérieur hiérarchique man je pourrais travailler avec vous mais nous avons des relations mais nag sama projet bi dama ci fiir ba lépp lu ma gis loo xam ne neexuma ci damay woo fekk dégg nga Dieng ne ko Dieng mu ne ma ma ne ko Diouf mais li muy def neexuma jëndee ma ko loolu it seen naa ko te du tere moo ko war a mel ni si comme ça. Hmm. donc loolu nit ñi xamee ko noonu ñu démarré je crois que soo xoolee saa bi à part ñu fi nekkoon daaw ñaar ba ñetti nit laa ci xam hmm. ñeneen ñi sax. peut-être daan naa leen dégg mais fii laa leen dégg gisee donc on demande les activités rapidement ñu def c'est bon. merci monsieur le président. pour obtenir un crédit est vraiment élevé et ne permet pas de pouvoir mener des activités de la donc bu ñuy viser ci banque yi ak mutuelle rek ku def cent mille war a fay après ay cent soixante mille te ngay réaliser bénéfice yi soixante mille yooyu ba mën ko fay donc ce qui signifie que tu travailles éviter les débats. Mais ici, il t'emprunte 5 000 francs en remboursant à la fin du mois 500 crédits. boo dee 18 000 francs nga jiite ainsi donc ça te nga mën a leb mën a fay en plus de cela ce que tu rembourses 1000 francs boobu da ci am yow ëllëg bu ñuy séddoo ne la ciy donc loolu kese la moom mooy le projet. donc ça pour ne pas être compliqué léegi li ñuy demande nit ñi mooy ñëw encadré non maire bi nii ngeen ko war a defee nii ngeen war a toogee non épargne bi nii la war a def nii ngeen di remplir les carnets bi nii ngeen di def ngeen demee ba ki def ba commencé ngeen door a calculer ne day di kii war nañ ko mën a bindal benn projet bu ndaw ñu wax leen garabas bi ngeen bind ko bu dee jaay jaar jaar mu jaay jaar bu dee mango bu dee tissu bu dee ginnaar lay def ngeen bindal ko ko ngeen encadré ko ba mu commencé def ay activités léegi à la fin de la première phase bénéficiaire bu nekk muy mairie bu nekk ñun projet bi dañ koy jox cent cinquante mille mu yokk ci activité bi donc loolu mooy projet bi donc une approche intégrée pour promouvoir les activités donc il y a les présentations et objectifs du projet comme les mesures d'accompagnement du projet Dispositif organisationnel du projet, ciblage géographique et communautaire, feuille de route de mise en œuvre des activités. Voilà ce que nous allons faire. On continue rapidement et on entend. Le programme de protection sociale adaptative dans le Sahel. Donc, ce qui signifie que le projet, ce n'est même pas seulement au Sénégal, mais dans l'ensemble du Sahel, c'est-à-dire Burkina, Niger, etc. Le projet est partout au niveau du Sahel et particulièrement aussi par la, par la Banque mondiale. Initié en mars 2015, concept le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Au Sénégal, le programme AFP, AFP pour les Gémoïdes, adaptatif, euh, anglais là quoi, mais moom mooy protection sociale adaptative noonu la ñu ko tuddee fii quoi. mais ñu bind ko. waaw waaw xam nga ñoom anglais fii dañuy tuural affaire donc génnee nañu a été mise en œuvre à partir de 2018 au travers du le programme national de bourse de sécurité familiale. Donc j'ai dit que ce sont les mêmes cibles. Donc moo tax bourse sécurité familiale moo tudd programme national de bourse de sécurité mooy PNBS moom moo nekk ni sigle bi parce que moo nga xam sigle yi programme national de bourse de sécurité familiale. les projets pilotes ont poussé 15 000 ménages en milieu urbain mooy ci ville périurbain et dans les régions de Dakar, Thiès, Kaolack et Saint-Louis. Sa mise à l'essai au de 45 000 ménages. Cette on va toucher les 45 000 ménages répartis sur l'ensemble du territoire et qui s'appuie sur les résultats et recommandations ici des différentes évaluations du projet pilote d'un atelier collaboratif ainsi que sur les échanges entre les parties prenantes. Le projet Yokum vise d'accompagnement en de faciliter des initiatives productives des populations. des populations productives en situation d'extrême pauvreté. Donc, comme l'a dit Amadou on dit les menaces les plus pauvres, nous en tous. Ces objectifs, quels sont D'augmenter la productivité et les revenus tirés des activités économiques des bénéficiaires des filets sociaux, de faciliter la diversification des revenus et d'aider les ménages à gérer les risques et à faire face aux chocs. Choc mooy nga yeewu nawet jot ngeen doon loolu loolu nawet amul nawet bi baaxul loolu c'est une chose donc pour nga mën ci géej day fekk am looy jàpp ay initiative économique ay activités économiques boo ko déggee mooy nit mu ngi jaay wala mu ngi def loolu la ñuy wax activité économique ok maanaam donc voilà mesure d'accompagnement du projet y a la préalable à la mise en œuvre. Il y a la formation des formateurs et accompagnateurs. Donc vous serez formés, vous, et aussi il y a des formateurs qui vont former les bénéficiaires qui seront aussi formés. Formation des formateurs aux outils, contenus et méthodologies modiques entrepreneuriat, CV, CVV et formation des accompagnateurs en sensibilisation communautaire, coaching avec ak ASEC. donc lépp lu ñuy wax pour ngeen def ko sur le terrain xamal ne dañ leen ciy former ba pare. di leen sànni mu ne dem leen defi nangam nii ngeen dajaloo fii nii ngeen di ñëwee un bu ma gën a dégg nga mokkal ngeen ne mokkal ngeen ko ngeen dem defi ko sur le terrain donc li ñu wax dem leen defi loo xam ne amu leen ci benn xam-xam c'est bon communication sur le projet de mobilisation communautaire parce que une de projection débat vidéo de présentation du projet et fiction moom la ñu bëggoon a wane puis succès historique suivi des débats animés par l'accompagnateur donc il faut yéen ñu former leen d'abord ci première mesure mooy la sensibilisation communautaire ñu former leen nan ngeen koy defee parce que ni ma toogee ni di waxtaan ci biir seen biir te tiituma il ngeen mën a toog ci biir mbéy mi di waxtaan te du ngeen tiit parce que amul kenn ku fi timide yéen yéen ñëpp ku ci dem waxtaan. barke yàlla ku ñuy wax moom fi ngeen a timide boo laqatoon ca bunt bàyyi ko ci ay xaritam boo ay rek ay naan du moom donc l' essentiel dañ leen di woon da ngeen di waxtaanee seen ak seen i comme ci seen bénéficiaire. mesure de fonction et fonctionnement des AVEC nan la ñuy AVEC yi ak AVEC bi nan la war a doxee parce que loo association ay nit ñu dajaloo. il faut mu ay règlement moom la ñuy régir pour que ñëpp respecté ko du tey ci ñu la nga ñëw midi kii ñëw 11h kii ñëw 4h bu ñëwee ñoom toogee ne kenn di waxtaan noonu la il faut ñu wan dégg nga ni ñuy toogee formation utilisation technique des groupes avec ASEC 12 à 25 participants donc groupe bu ne du romb 25 participants le minimum pour mu nekk ASEC wala avec mooy mbootaay yi.

ñu formé ci nit ñi mooy formation des participants en ñu yar leen ci wàllu lu ñuy liggéey nga xam ne boo amee sa entreprise nga ciy liggéey muy jaay caaf ak leneen du parce que man maa moom dégg projet bi maa liggéey rek xaalis bu ci tuur man maa moom donc su ma yoree dégg su ma jaayee vingt am naa possibilité wala neex ma rek ma waaxu dégg am lu mu deelee ma jox ko vingt mille du noonu lay doxee boo nga canaliser nit ñi ba mu xam ne l' entreprise et l'individu ça fait deux yooyu leen tàggat formation des en élaboration de plan d'affaires simplifié moom mooy bind ni ñuy bindee projet benn part rek la dañ leen di wan ne nan lañ koy defee et accès au marché nan la ñuy def léegi ba nga xam ne activité bii nii su ma ko defee fii laa ko war a liggéey xam nga kuy jaay tey nga par exemple ay bin bi doo leen dugg ci tàkkate di ko fa jaay wala parce que même bu nekkee dégg nga benn paa bu mel ni seesoo na ruus na ay xaritam toog ci bu jàkka ni mun naa jànga bin bin bi yow Michel c'est pas vrai ah non c'est-à-dire am nga c'est un exemple banam jaay kuus wala di jaay kopp mën nga ko jaay ci tundu jàkka ja mais boo jaay dégg nga par exemple ay bin bi euh, da ngay dem ci association xale jigéen ñi foofu lay jàng c'est-à-dire loolu aussi loolu la ñu wax il faut que ñu am benn éducation boo xam ne dafa xam ne lii ko war a jaayee wala war nga ko jaayee boo demee Tamba ñu ne la defal benn projet nga bind te mu leen na ne dëkk bi amul géej indi nga sa wala nga dem dans le nga ne man pisciculture laa bëgg a te nga gis nga dégg ay arrêté bi nga war a dem am loolu il faut man ci am benn xam-xam boo xam daf leen di permettre ñu mën a liggéey te mën ci jël formation de plans d'affaires simplifiés et de formation soit c'est une liste proposée à la carte sont les posées exprimées au niveau régional c'est-à-dire dans chaque région dafa am benn lu wax une activité géographique boo xam ne mën na fa dox tey boo demee dans le Fouta la Matam y a des activités comme Lambous Obine Kaffrine et yooyu mën na fa on peut élaborer des formations sur ça parce que su ma mbokku pël yi jaar la ñu am ñu former leen ci boo demee Mbour ñii dañuy jaay ñii di defar keccax ñi di defar nangam nangam parce que loolu moo koy dox foofu lañ koy ñuy jël si ñu élaborer ci aussi ay modèles formels ainsi de suite donc mesure d'activation productive mooy ne nga après formation yooyu yëpp dañoo ñu former jigéen bi dañu commencé di leb di rembourser di leb di liggéey di rembourser di leb di rembourser bi ñu xam ne lañ liggéey am ci dara di rembourser bor bi ñu may leen ku nekk cent cinquante mille ne ko yokkal ci ci sa bénéfice pour sa activité bi a yaatu donc voici les quatre mesures qui aujourd'hui englobent le projet Yokk Kom Kom mais ne vous en faites pas vous serez formés module par module avant de partir sur le terrain. ah mu ngi wax les pauses à tout le monde donc je vais faire la présentation de la répartition des différents groupes au niveau des trois départements wax na leen sànq ne le projet couvre la région de Thiès. que quand la région de Thiès, il y a trois départements, Thiès, Tuaon et Bourg. Et on de, de Et par rapport au département de Thiès, donc, le projet couvre l'ensemble des communes de la région de Thiès. On a 49 communes. Donc, la région de Thiès, au niveau de la région de Thiès, il la commune de Kayar. D'abord, la commune de Kayar, tous les villages qui sont ciblés, Euh, Tanki Yoff Ndiokhob euh, Géej Cosaan et en face vous avez de bénéficiaires par village village nekk le nombre de bénéficiaires yi nga xam ñoo war par exemple si on prend le village de Tanki Yoff on a 39 bénéficiaires de bourse de sécurité familiale donc ce qui veut dire qu'on aura deux groupes assignés sànq wax nañ leen ko. Les groupes ASEC varient, le nombre varie entre 12 et 25. 12 et 25. On ne peut pas dépasser les 25. Si ça si le nombre, le nombre de bénéficiaires dépasse les 25, on est obligé de, de conseiller une autre ASEC. moo tax fii ngeen gis ni on a 39 bénéficiaires donc là on a deux ASEC là où on a 21 bénéficiaires on a une ASEC là où on a 67 bénéficiaires on a 33 ASEC Le nombre d'accompagnateurs à affecter au niveau de la commune de Kayar, c'est un accompagnateur. Donc, dès à présent, on a une idée de, de l'affectation euh, des accompagnateurs par commune. Donc, on aura un accompagnateur au niveau de, de, de Kayar. Maintenant, si nous prenons la commune de euh, de façon très ramassée, je pense que vous avez compris avec la commune de Kaya, le reste, bon, avec qui très rapidement. Maintenant, la commune de, la commune de euh, Roma, la commune de Khombole donc vous voyez il y a Gandiol et Guinaw Rail donc comme bénéficiaire 44 65 donc là-bas on aura deux d'accord deux groupes ASEC ici au niveau de Guinaw Rail on aura trois groupes ASEC là aussi on va y appliquer etc etc la commune la commune 2 etc donc vous verrez que arrivé en bas allez donc pour l'ensemble des communes Donc, on se retrouvera avec un effectif de 1384 bénéficiaires qui participeront à ce programme, avec 71 assets qui seront mis en, euh, mis en place et 17 accompagnateurs qui seront affectés au niveau du département des Thiès. Comme le département des Thiès a 17 accompagnateurs, on aura 71 avec et on aura comme bénéficiaire 1384 bénéficiaires. Voilà. Donc, Vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions. Vous pouvez poser des questions. Voilà. léegi ñu def ci euh, le département de Mbour a combien de y a combien de communes Mbour il y a combien de communes seize communes il y a seize communes On commence d'abord par la commune de Ngého. Donc, la commune de Ngého, il un seul quartier qui sera euh, qui est ciblé. C'est quartier de Yabonne. Là, on a 73 bénéficiaires au niveau de ce quartier. 173. Donc, on va se retrouver avec 7 à Donc, deux accompagnateurs. Là aussi, il y a un commentaire à Donc, vous allez comprendre que, bon, maintenant, chaque accompagnateur aura cinq groupes. Ne peut pas dépasser les cinq groupes. Donc si ici on a deux accompagnateurs alors qu'on a sept groupes, c'est veut dire que l'un des accompagnateurs va prendre les cinq groupes, l'autre accompagnateur va prendre les deux groupes et on va lui donner d'autres groupes pour compléter. On a dit le commentaire, un accompagnateur pour cinq groupes à sept à Guéhop et un, deux à sept à Guéhop, plus les deux à sept de Malécola. Vous avez compris Donc ce village va se retrouver avec quatre groupes. On a essayé un peu d'arrêter pour lui donner quatre groupes parce que euh, l'accompagnateur sera obligé de faire des deux groupes. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est limité à quatre. Voilà, donc continuer. Donc pour la commune de Joan Fayoum, etc., commune de Pouponville, demande à la fin jusqu'à la fin. Donc pour chaque commune, on a fait la répartition par euh, comment dire, à des accompagnateurs et des, on a défini le nombre d'avets. Maintenant, si vous venez par exemple au niveau du département de Bourg, donc on se retrouvera avec 1671 bénéficiaires, avec 83 assets et 18 accompagnateurs. Donc au niveau de Bourg, il y aura 18 accompagnateurs qui seront affectés, répartis dans les différentes communes. Maintenant, après, on fera les affectations à notre niveau selon des modalités et des critères et on va essayer vraiment de, de vous dire problème par rapport à ça. Suite à votre engagement, bon, ça c'est le département de, de Tuvawa. Département de Tuvawa, il y a 18 euh, communes au niveau de Tuvawa. Hein? Donc vous verrez que par exemple, si on prend par exemple la commune de Boro, Boro on se retrouve avec un seul quartier. un seul acteur avec gagnant bénéficiaire. Gagnant bénéficiaire, c'est une AC. Gagnant bénéficiaire, c'est une AC. Parce que ça, comme on a dit, de bénéficiaires par AC varie entre 12 et 25. Donc là, on a une AC. C'est plus difficile. Voilà, donc ce que je dis depuis, on aura un accompagnateur. Et cet accompagnateur-là, va prendre d'autres routes jusqu'en Mboro pourquoi on a on se retrouve avec une affaire parce que n'oubliez pas que sànq ñu leen a il y avait une phase pilote qui a été expérimentée au niveau euh, du département de Tivaouane et la phase pilote avait ciblé la commune de Mboro la commune de Tivaouane et la commune de Vélingara donc à Mboro on avait pris pratiquement l'ensemble des quartiers et le seul quartier qui restait c'est le quartier bu comment dire encore bordeaux. donc là nous avons un accompagnateur l'accompagnateur qui sera à bord donc aura deux deux autres groupes de la commune de Darou Khoudoss puisque on se dit que la commune la plus proche de Mboro c'est la commune de Darou Khoudoss. kon kooku dañ ko joxaat yéen yéen de ASEC yu Darou Khoudoss notamment Karim et Saba voilà donc et cetera. Donc pour chaque qui on a fait des commandières, là où vraiment il faut euh, commander, essayer de Voilà. Allez-y jusqu'à la fin. Voilà. Donc, vous verrez que par exemple au niveau du département de Chihuahua, donc on se retrouvera avec 73 assets, avec euh, 1483 bénéficiaires. Et là, nous aurons 20 accompagnants. Donc, si vous faites le total, on se retrouve avec 55 accompagnateurs qui vont vraiment mettre en œuvre le programme sur le terrain. Et chaque accompagnateur aura euh, des relais qui vont l'accompagner. Et pour chaque groupe, il y aura un relais qui va accompagner pour la mise en œuvre de ces activités. Donc voilà en fait la présentation que je voulais faire pour que vous puissiez avoir une idée de la répartition dans la dotation privée, le nombre de groupes mais aussi de d'autres accompagnateurs par département. Merci.